ma baad mbokki jullit yi gannaaw bu nu sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonental bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal yàlla ak topp def ay ndigalam bàyyi ay tereem bu loolu wéyee war na noo xam ne dajaloo ci jataay boo xam ne jataayub jaamu yàlla la muy jaamu yàlla boo xam ne bu ñu santaane la def ko ci mbooloo day mbiram lu màgg la lu bari njariñ la njariñ luy dellu ci askan wi ak njariñ luy dellu ci doomu aadama yi bokk na ci njariñ yi bokk na ci daje yi nga xam ne doomu aadama yi danañ ko daje te fekk jaamu yàlla moo leen yëkkati mooy ndaje ngir def jullit mbooloo ci jàkka moo xam jullit la bu bokk ci julli juróom wala dafa doon jullit ajjuma ndax lislaam dafa xir ci dajale mbooloo mi ñuy am fenn fu ñuy dajaloo loolu moo tax mu wut ay jàkka ngir waa koñ yu ndaw ndawaan yi di fa daje di xamante wut jumaa ngir bërëb yu sore yi ñu di fa daje ay bis gu nekk ngir ña sore mën a xamante seen moroom man leen a gis man leen a nemmiku kon ndaje moomu jullit jàkka ci la bokk nga xam ne bis bu nekk juróomi yoon jullit ya dañ ko fay daje daje boobu ci la ñuy mën a jokkoo mën a xamante mën a nemmikonte ca la ñuy mën a dimbandikoo ca la dooley lislaam di feeñe ak kàttanu jullit yi jataay yooyu fa la ñuy jàngale ka xamut ka tàyyeeloon fa lañ koy sawarloo dimbaleen ci ci ay yiw ak ëppleente ci itam foofa lay amee jataay yooyee mën na caa jóge ñu yërëm koo xam ne ku néew doole la te ñàkk mën na caa jóge itam njariñ yu bare bari yoo xam ne buñ ko seetee ci biir société bi lay dellu ak yeneen i njariñ yoo xam ne day dellu ci genn kër gu nekk buñ xoolee alquran ak sunna dañuy gis firnde yu bare bare bare yuy wone ne nit ki day war ci moom saa boo xamee ne dégg na ne nodd nañ rek dafa war a jóg dem ci jàkk ja waaye ab jullit sañul dégg ñu nodd ba noppi mu toog ci këram julli donte sax day julli julli mbooloo firnde yooyu bokk na ci li ñuy tudde salaatul xawf ci fiq su fekkee ne jullit ya dañoo nekk ci biirub guerre di xeex di jihaad fi sabilillahi ba waxtu julli jot borom bi tabaraka wa taala dafa digal ab yonentam alayhi salaatu wasalaam ne leen na ngeen julli julli xam ne julli ragal lañ koy tudde maanaam jullit nekk ci fitna wala jullit nekk ci guerre bu imaam ji taxawalee mu ne ko na am kuréel bu taxaw ci sa gannaaw boo jullee ba am ak ñoom ñaari rakka jamono yi ñuy julli am na beneen kuréel bu taxaw jàkkaarloog noonu yor ni ngànnaay soo jullee ba toog kuréel bi nga xam ne ñoo nekkul woon di garde ñu dem garde ji beneen bi ci des ñëw ànd ak julliwaat ñeneen ñaari rakka kon su fekkoon ne ak yombal am na buy wane ni nit ñi mën nañoo ba a julli julli mbooloo ci benn situation kon wax dëgg yàlla situation bu mel ne xeex jaamaarloog noonu ñu yor seen i ngànnaay nga yor say ngànnaay kon foofu wareef na fee mën a maye kenn ku nekk julli sa julli bopp waaye loolu taxul ñu maye ko buñ xoolee danañ gis itam ne yonent bi sallallahu bokk na ci yim wone ci njàngaleem moo di li ñu tudde aljamu bayna salatayn ci su fekkee ne dañuy ñëw masalan julli fi tisbaar fekk ab taw di wàcc wala mu mel ni day bëgg a wàcc wala nu julli timis fekk ab taw wala ngelaw dafa wàcc wala dafa mel ni day ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ne foofu sañ ngeen a boole ñaari julli yi su ngeen jullee sëlmal tisbaar na ngeen daal di taxawalaat julli tàkkusaan dellu ca seeni kër lu tax mooy ragal ne taw bii di bëgg a kët su sóobee nit ñi duñ mën a dellusiwaat def julli mbooloo kon loolu moo tax ñu daganalal la wala ñu sant la nga julli ñaari julli yépp ci waxtu wu njëkk bi su fekkoon ne julli julli mbooloo ak julli ko ci sa kër ànd ak sa njaboot dañoo yem kon wax dëgg yàlla julli gu nekk dañ koy bàyyi ak waxtoom ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta julli yi genn gu ci nekk dañ ko wutal waxtoom waaye nag ci kaw su fekkee ni ñu ngi koy julli mbooloo su fekkee am na lenn du leen nar a gàllan ko ba du ngeen ko jullee mbooloo kon loolu day daal di farataal ci yéen wala daf leen di daal di sant ne na ngeen boole ñaari julli yi su fekkoon ne ñooyam kon genn julli gu ne dañ ko bàyyi ca waxtoom waaye nag taxul ñu def loolu borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne wa aqimu salata wa a zakata warkau maa raakiin na ngeen julli na ngeen joxe asaka na julli ànd ak way julli yi loolu tax ñuy saraa xadis bi aaya boobu yépp dañuy wax ne war kaawu maa raakiin maanaam na julli ànd ak ñi nga xam ne dañuy julli jëli nañ ci abu hurayra radiallahu taala anhu ci hadis bu wér xam ne buxaari ak muslim ñoo ko génne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na julli gi gën a ci naafiq julli gi gën a diis ci naafiq yi mooy julli gee ak julli fajar waaye su fekkoon ne xam nañ li nekk ci ñaari julli yooyu ci aw yiw maanaam jullee ko ci mbooloo kon nee na kon danañ dikk ci jàkka ji doonte bu ñuy ñëw sax dañuy raam su nit ki demoon ba tële ba àgg ci day raam nga xam ne mënatu la taxaw su xamoon yiw wi nekk ci ñaari julli yooyu nee na kon danañ ko dikkee doonte su ñuy ñëw sax dañuy raam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu teg ca man sax de li ma doon bëgg a def mooy jekki bañ taxawal julli rek ma woo kenn ne ko kaay taxaw àggale julli ji su ko defee ma génn dellu ca kër ya xool ñi nga xam ne dañoo toog ci seen kër te amuñu ngànt ma taal seeni néeg mu lakk ci seen kaw nee na loolu la doon xalaat a def kon boo xoolee da nga gis ne yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam ak yërmandeem ci xeet wi borom bi melal ko ne bil muminina raufur rahim mooy ki am yërmande ci jullit yi bu fekkee dem na bay xalaata seet te julli ji wut ca jàkka ja muy war a taal këram ci kawam kon wax dëgg yàlla loolu bàyyi lu rëy ci lislaam mooy war a tax yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam ak yërmandeem muy xalaat xalaat bu mel noonu ci abdullah ibni masud radiallahu taala anhu moom itam ci xadis bu wér boo xam ne muslim moo ko génne mu ne képp koo xam ne bëgg ngaa daje yàlla ëllëg jamono ya ngay daje moom fekk nga yor sa ngëm yàlla yor sa lislaam nee na na nga wattu julli yi na nga leen fonk saa boo déggee ñi woote na nga jóg ndax kat yàlla ci boppam moo sos loolu moo ko santaane ci làmmiñu yonentam su fekkoon ne da ngeen di julli ci seeni néeg bàyyi jàkka ji nee kon bàyyi ngeen yoon wi seenub yonent xàlloon te kat su ngeen bàyyee yoon wi seenub yonent xàlloon kooku da ngeen di sànku mu ne amul lu dul amul waajoo xam ne dana laabe këram laab bu baax a baax jàpp wala mu sangu boole ko jublu jàkka ja lu dul saa bu seqee ab jéego borom bi tabaraka wa taala daf koy faral bàkkaar saa bu seqewaate beneen mu yëkkatil ko daraja fa moom muy gën a kawe ay daraja di gën a ñàkk ay bàkkaar mu ne man de gisoon naa ci ay jamono moom Abdullah ibnu Mas'ud mooy nettali ni jullit mbooloo ñi ko daan tardé naafiq rek moo daan moom lañ daan julli jullit mbooloo mu des këram munaafiqun maalumun nifaaq naafiq boo xam ne ak naafiqam leer nañ mu ne àggoon na ci gis naa ni nit ñoo xam ne danañ feebar ba taxaw mënatuñ ko waaye bu déggee nodd ga rek ñaari nit ay ñëw ci saxaaba yi dimbalanteeg moom kii jàpp ci mii mbagg kii jàpp ci mii mbagg tànk ya di watu ñu ànd ak moom ci melokaan boobu ba dugal ko ci diggante sàppe si mu daal di toog ànd ak mbooloo mi di julli kon ñooñu julli mbooloo àggoon na ci ñoom foofu kon buñ xoolee loolu danañ gis ne wax dëgg yàlla bàyyi jullit mbooloo ni ko Abdullah ibnu Mas'ud melale kooku bàyyi yoonu yonent bi la te bàyyi yoonu yonent bi ni mu ko waxee kooku ndëngte la ak réer la itam ak sànku la xam nga ne lu mel noonu ab saxaabi yi du ko wax ci xalaatu boppam waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la koy jëlee te bu fekkee da ngaa seetlu ne saxaaba yi ci seen jëmbi wopp ñoom ñoo dëppoo ne képp koo xam ne gis nañ ne bàyyi na julli mbooloo ñu ne kii am naa feq la kon kooku ijmaaw saxaaba la maanaam seenu dëppoo ci loolu loolu nag di su ko wax ci menn mbir moo xam ne doonut lu war kon loo xam ne santaane yàlla nga xam ne pexe amu ca des ko war a def loolu rek la ñu melale noonu boo xoolaatee gis ne fi mbir mi àggoon ci ñoom àgg ci nit kuy feebar ba mënatu la taxaw da nga gis foofu lu am solo muy lu lay wan ne julli gi ci boppam teewe si ko ci jàkk ji dafa war waaye ñaareel beer danga gis organisation ak yërmaande bi nga xam ne moo doxoon diggante saxaaba yi ba ñuy dimbalante di jàppalante ci joxewu farata yi nga xam ne moom la seen borom waral kon su fekkee ne ki feebar ba àgg foofu noonu la mbiram demee ci dundu saxaaba yi suñ xoolee sunu dund nun tey wax dëgg yàlla danay gis ak sore lool koo xam ne mi ngi ci jàmmam dara dalu ko wér-gi yaramam la yor waa këram it tubaarkàlla wér-gi yaram rek moo fa ne am na kóolute muy sécurité amul dar lu muy ragal ci yoon wi di xéewloo xéewali yàlla yi suba ak ngoon ñu nodd mu dégg nodd ga daal di jóg jàpp daal di taxawal ci biir këram wax dëgg yàlla kooku santul xéewali yàlla yi mu ko jox ci wàllu sécurité ak ci wàllu wér-gi yaram kooku dafa war a jóg wuy ji gisee mbokki jullitam ya joxeendoo farata ja boole ko ak yiwu màng màgg wow yi ñuy màng ci jéego yi ñuy seq jëm ci jàkka ja mu fas ci yéene am ndax kat mbir mi li tax saxaaba yi di ko tuddee ak naafeq moo di buñ ko xoolee ci wàllu àdduna yi nga xam ne nit ñi gëm nañ ko ba amuñu ci sikki sàkka jëflante wu ak moom noonu ndax suñ ne woon ñaari marché ngi yoo xam ne benn bii lii ngay jaay boo fa demee benn dërëm lañ koy jënde waaye boo demee fa li ñu jënde ko ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ak juróom-ñaar kon wax dëgg yàlla fii ñu koy jaay benn dërëm moom doo fa dem kon nag li ci des mooy ndax xol bi ni nga amee yàqin ci dërëm yi amee nga di yàqin ci yool bu rëy boobule loolu la saxaaba yi firi ba wax ne nun kan daal gis muy dellu gannaaw ci julli mbooloo moo dem naafiq naafiq mooy koo xam ne ngëmam ngëmam wérut wala amul ngëm mooy xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne julli kenn ci yéen ca këram wala ca marché mu julli ca jàkka ji ci mbooloo mi gënee na ko ñaar fukki daraja ak juróom ci beneen riwaaya bi ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar mu teg ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis bi ibnu Mas'ud doon wax léegi moo ñu won ne lu mu déggee ci yonente bi la mu ne su fekkee jàppee na këram rafetal génn jëm ca jàkka ja te fekk julli képp ko yëkkati nee na kooku bu seqee ab jéego yàlla yëkkatil ko daraja mu seqi beneen jéego yàlla faral ko bàkkaar mu ne nag su fekkee ni ñëw na julli maanaam julli yi nga xam ne mooy ay naafilaam bala ñoo taxawal julli gi nee na su ko defee malaayika yi dañ koy ñaanal di wax ne yàlla yàlla na nga ko sottil xéewal yàlla yàlla na ko jéggal yàlla yàlla na ko yërëm mu ne képp koo xam ne ci yéen tam mu ngi julli ba àggal toog di xaaraat geneen julli ñu ngi koy bindal yoolu koo xam ne ci biir julli la nekk kon loolu tam lu am yool la kon daal yool bu màgg a ngoog su fekkee ne ñetti melokaan yi mu wax daje ci nit ki bi ci njëkk mooy na rafetal njàppam ba ca tegu mooy bi mu génnee di julli ji julli rek a ko yëkkati amul beneen itte bu mu fay faji ñetteel ba moo di saabu agsi ci jàkka ji na julli li nga xam ne moom lañ sunnaal ci moom liñ naal ci moom mooy jamono yoo xam ne defagul rakkaa yi mu war a def lu jiitu gee yooyu jaadu na mu def ko su fekkee ne dafa dugg ci biir jàkka ji it war naa def taxiyatul masjid li ñuy tudd nuyoo jàkk nuyu jàkka loolu ah, lu bare bari dañ lay wax ne bu fekkee ne imaam ji day xutba diis ko def waaye la gën a wér te gën a sax moo di su imaam dee xutba ajjuma itam du tee ci dugg ci jàkka ji sañu ta toog lu dul dafa julli ñaari rakka loolu mooy nuyoo jàkka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su fekkee ne kenn ci yéen dugg na jàkka bu mu toog mukk lu dul dafa julli ñaari rakka te di ngeen ko xamee ci xadisu Sulayk al-Ghatafaani bi mu duggee ci jàkka ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen ko mu toog daf ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jógal jullil ñaari rakka mu daal di julli ñaari rakka te fekk boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ci kaw min baram ba di xutba lenn ci fuqahaaw yi nga xam ne dañoo gisul masala boobu nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo jàpp ne imaam bu dee xutba kenn sañ ko julli dañuy wax ne ah kooku ni taxoon mu may ko mu julli ñaari rakka moo di suleyk dafa doonoon ku ñàkk sol yére yu xottiku ñu bëgg mu julli ci biir mbooloo mi ñu séen ko ñu séen ko ndax ñu mën koo sarax suñ noppee loolu wax dëgg yàlla aw lay la wu dëgërul lu tax dëgërut moo di ñi ñàkkoon ci jamono yooyu sol yu xotti ku bari na lool du woon su lay rek ñaareel bi mooy ki ñëw di julli si du jéggi nit ñi ba agsi ci kanam nga xam ne buy julli ñi di ko gis waaye fa yëf ya yam ci moom fa sàppe sa yam foofa lay taxaw di julli kon nit ñi duñ ko geesu bay xam sol na ay sagar wala sol na loo xam ne lu rafet la ñetteel bi moo di xadis bi ci boppam day weddi loolu ba mu set wecc ndax yonente bi alayhi salaatu bi mu waxee loolu ba àggal lim ci teg daf ne ida daxala axadukum almasjida walimaamu yaxtub falyusalli rakaatayni walyatajawaz fihima su fekkee kenn ci yéen duggati na jàkka loolu la ca teg su fekkee kenn ci yéen duggati na jàkka te fekk imaam a ngay xutba na julli ñaari rakkaa na julli ñaari rakkaa te wayefal ko nag bu mu ko def julli boo xam ne bu yàgga yàgg la kon ay mbir la yoo xam ne dafa jaadu jàngale ko jàngalente ko ndax ñu xam dara ci attey jàkka ba yu ci bëree bëri tumuranke gi mu tumuranke fi nit ñi mën a dañ wala mu wàññi kon ñetti melokaan yooyu mooy daje ngir mu am ay yool yu màgg a màgg a màgg yooyu ñett ci gën a fés yool yooyu ba ca gën a jëkk moo di ne jéego bu mu seq yàlla yëkkatil ko daraja fa moom te yëkkati koy daraja fa sunu borom am na solo lool ñaareel ba moo di malaayika yi ci seen jëmmi bopp dañ koy ñaanal te ñaanuk malaaka moom néew na ñu koy delloo yàlla yàlla na ko dolli xéewal yàlla yàlla na ko jéggal yàlla yàlla na ko yërëm ñetteelu njariñ yi moo di jamono yo yu toogee di xaar ak julli mi ngi ci yoolub julli ba ba ñu julli ba dem kon loolu tam day soññee ci teel a ci jàkk ji am na ci solo wax dëgg yàlla kon mbéga ngi foofu moo xam ne mu màgg a màgg la ci képp koo xam ne day julli jullit mbooloo bokk na ci li nu koy feddlil xadiisu Usmaan ibnu Affaan radiallahu taala anhu mu ne képp koo xam ne jàpp na njàpp moo xam ne njàpp mu rafet la boole ko ak génn dox jëm ci jàkka ja ci julli goo xam ne guñ farataal la julli ko ànd ak mbooloo ma nee na képp ku ko def borom bi tabaraka wa taala jéggal na la say bàkkaar kon kenn ku nekk am nga ci ay bakkaar loo xam ne li nga doon ñaan moo di borom bi tabaraka wa taala jéggal la say bàkkaar yàlla na suñu borom tabaraka wa taala gindi ci suñu diine yàlla na suñu borom tabaraka wa taala jéggal suñuy bàkkaar aqulu ma tasmacuun wa astaqfirullaha li wa lakum wastaxfiruuhu fa innahu huwa algafuuru rrahim